mbokk yi ba tey ñu ngi taxaw ak kenn koo xamante ni kenn du ko présenté muy Wouly gis nga ko léegi yóbbu nañu ci ci Azaz ñu boole laak nit nit boole laak moom nga boole kook ñun mu may ñu kër may na ma may sëñ Basirou di kontaan bu baax a baax nga yóbbuwaat ñu ci sa beneen xarit buy jaay parfum lal la. fii mooy bàyyi parfum di jaay parfum yu neex parfum kalaas yoo xam ne man ci lay xeeñ gaa ngi dugg xool. <laughs> bàyyi parfum xoolal dafa am diw ay diw man sama soxna fii lay dina diw fa fan dafa xees peej ba pare am na diw yoo xam ne du xeesal uh-huh. sa bi nii diw boo xam ne yow sa sa la lay jox soo ñuulee sa bi day gën a rafet boo xeesee aussi noonu lay yem ak yow xoolal xale bu jigéen ko mu mooy indi ci parfum yi parfum parfum classe yu neex ba noppi seerul laay mën naa am ak yow semaine ci sa yére ba pare seerul waaye nekk ci àdduna boo bëggee parfum parfum mel nit mel nit bi teelu diwlin xam nga ne fii fii fii rek laa am fii ci Kër Massar doo vaay bi jëm doo vaay bi jëm parfum bi mel. fi yàlla solal parfum boobu am na. yow kay li tax saa yoo ñëwee signature contrat ay ay liiru jaan ak ga ay ay yaawu jaan di xeeñ parfum yu naqari yow ngay xeeñ parfum bu neex. man parfum naturel laay xeeñ yoo xam ne xool yi. lembali yaa ngi nii laay wala kon fii lañ lay nembalee. man ut xam ngeen ut. xam nga ut boo xëyee taal ko day dafa basa ci war sakk waaw am na parfum ut am na cuuraay ut li neexul. daa mel ni ci lañ lay nemmalee di lay nemmle <laughs> moo tax damay bidanti di dafa neex di si daal xoolal bi saabu yi. kii na mel teen bi. wax ma saabu. saabu bi LKP la tudd. LKP waaw saabu bi waa LKP ñu koy defar ko entreprise bi noonu la tudd ah, déjà à base de collagène. di rax sa yaram ba mu set baax na ci góor baax na ci jigéen xam nga yéen xale yu góor yi da ngeen am faral di amuy weex ak yooyu noonu ak picc yu sew yi daf koy dindi ba mu set wecc wecc ba doo am benn may po bi. ni nga xeesal nii lan moo koy. te ñun gisoo suñu équipe ñun ñëpp dafa baax. gisoo meso xool équipe dafa xees. naturel ndax diw bi day tee taam xool xale bu ñuul bi. noir la mais boo ko gisee noir bi day briller xoolal góor ñi ñu ku ne Europe leer nañ bàyyi moo fi ne. <laughs> ànd nañ fi jaay oto. añ nañ fiy jaay kër léegi wulli parfum ngay jaay ñëw nga ci bar à parfon bi dama lay jox nga nga nga présenter parfum yi wax li muy dund ak nan lay def ci yaram. fii nag mooy bar à parfum bar à parfum amul fen ci Sénégal fu dul fii ci bàyyi parfum Keur Massar xam nga fit lan moo fi a neex gars doon dem Europe di génn parfum yu seer a seer a seer yi jaratu ko nanu ñëw fii ci bar à parfum mélange boo bëgg am na parfum bu seer bu doon jënd prix bu bu seer boo dikkee fii ci bar à parfum di nga ko am prix bu yom toog li waa ji xeeñ ngay xeeñ fii képp laa am man lii maa ngi ko doog a gis di jamais vu di jamais vu au Sénégal lii ni mel ni waaye ñoom fan la ñu jëlee lii Europe wala Amérique fii lii moom ba may xool parfois ci ba tey fii rek laa ko gisee. bu yomb la. boo paree parfum classe laa wax parfum classe oud. parfum boo bëgg boo ñëwee fii daal ci bar à parfum fii di nga am mélange bu neex bu seer boo xam ne seerul te na bar à parfum. damay euh, damay commencé bàyyi nga xool ba xam noo koy mën a mélanger parfum yi ba mu jaar yoon. fii nga koy dugal biteel mélanger la ma xam ñoom sax seen sax rafet. parfois yi leer. oh d'accord moom états-unis ñëw indiwul dara. Oh, itam xoolal seen biteel yi fa rafet xoolal seen biteel yi xoolal xoolal seen biteel yi la. laa ilaha illallah udd udd bar à parfum waaye bar à parfum mi xanaa ñoom dañuy lii du parfum la parfum dem classe waay comme ah, xoolal la maa xam ne ko ubbee sax man xam waaw ñu waa waa li dal ci ut ma ne trois façons yu bokkul ci ut ut bi la ku ko diwoo di nga am weer sa Euh, kilifa gi maa lay nuyu. ñu leen di delloo ziar bi. Thiandoum Mamadou Thiandoum. Euh, yu neex yaa nekk ci bàyyi à parfum bi euh, bëggoon naa xam. mën nañ wax loolu maa nekk barman fii mais fii suñu équipe bi ñun ñëpp benn lañ presque mën naa wax loolu ñëpp a li ñuy def mën naa wax parfum suñu métier la. tey fii nii Baye Parfum boo fi ñëwee boutique Sénégal yi am parfum bëri na lool mais Baye Parfum dafa indi lu bees loo xamante ni mosul am fii nii Sénégal moo di bar à parfum bar à tey ji da lay permettre bépp xeet parfum booy utiliser ak nu mu mënti mel boo ñëwee fii nii di nga ko fi fekk te ni ko fi amee mooy tey ji boo ñëwee toog yow mii client bi dinañ la proposer jox la benn chaîne boo xamante ni di nga fi mën a am parfum bi nga bëgg. mu doon parfum boo doon utiliser amatoo ko wala nga bëgg ñu créer la sa propre parfum boo ñëwee fii nii Baye Parfum bu Kër saar wala bu Nord Foire di ko fi am te ñu ngi élargie suñuy boutique di ko jéem a euh, yokk fépp ci àdduna bi ba ñu ngi préparer sax bu Gambie incha allah fii ak ay fan yu néew di ngeen gis Baye Parfum ak Gambie. dëkk ba euh, mais fi mu toll nii comme ku mel ni sëñ Bassirou bu bëggoon parfum boo xamante ni fu mu dem ci àdduna muy xeeñ moom kese moo koy xeeñ dina mën a am parfum bopp. baax sax bu ñëwee fii nii Baye Parfum toog baar barman ak ku mu ci mënti doon ci Baye Parfum na ñëw rek xolam dina sedd incha allah parce que fii nii jeunes yu fi nekk jeunes yu am potentiel yu mën seen liggéey am professionnalisme ñoo fi nekk ba tax na parfum dañ ko xam nekkul nekkul lu ñu foowee wala wala lu ñu tricher. dañ ko jàng dañ ko jàng parfum dafa doon dafa doon suñu mënin ñun bàyyi parfum voilà. ñu bari dañuy wax naan parfum bu neex euh, bu bu baax soo ko bëggee fow nga génnee xaalis bu bari fii ku bëgg parfum bu bari di nga génnee xaalis. matewu ko matewu ko parce que li ngeen gis nii di baara parfum parfum yi ngeen gis sélection bi yaatu na trop te ay parfum yu cher la bu fekkee en quantité normale bu nekkee en flacon fini léegi tey jii baar bi dalay permettre parfum bi nga doon jënd maanaam sa benn sauvage dior bu fekkee ci góor nii la danga ko doon jëndee genre benn euh, soixante dix mille et quelque boo ñëwee fii si baar bi da nga koy amee à un prix exceptionnel maanaam dépassé wul sax baar baar bi nga xamante ni moom la ñuy wax prix excessif moo tax damay conseiller gars yi ñam nañ ko para parfum xam nañ lu mu saf te dañ ni la mu saf ka ko màcc ko xam kon gars yi ñëw leen seet suñu Baye Parfum doo leen ko rëcc incha allah jaajëf